Fa Seck moom itamit defoon na fi lu am solo bégal waa plateau bi bégal téléspectateurs yi euh, euh, Papa maa ngi ñëw léegi ñu dugg ci euh, deuxième partie xam naa peut-être Fat Abdou dafa am benn question bu ndaw mu bëggoon poser ci première partie bi la bokkoon Fat Abdou ma ñëw ci yow. waaw nee xam nga journaliste question yi rek la bëgg. Mhm. waaye boo toogee. bi ñu wax ci sëñ Touba dootoo bëgg sax. Euh, euh, pose question wala nga wane ne am na loo bëgg a xam ndax li muy wax lépp njariñ la. Euh, bu leen ko dagg bàyyi leen ko mu <laughs> woon. loolu moom moo ci am ba pare c'est juste rek pour wax ne bu ñu wax cohésion sociale. Serigne tubaa mooy cohésion sociale. Mhm. et mooy concorde sociale. et je pense que li nga xam ne Sen TV def na ko. je pense que ñi nga xamante ne sax ñoom la ñuy wax ne jëloon nañ décision au départ lii war na ne war ne sénégalais yi di lañ bëgg la preuve aujourd'hui téléspectateurs yëpp Sen TV la ñu seetaan mhm. parce que xam nañu ne waxtaane Serigne Touba mooy waxtaane alaaji Malick te waxtaane alaaji Malick moom mooy waxtaane maam Limaamu Laay mooy waxtaane Cheikh Saad Bou cest à tey loolu moom mooy cohésion sociale boo xam ne weeru kooru daaw Sen TV daf ci fës weeru kooru ren Sen TV fës ci te nag ñu koy def d'une manière boo xam ne très professionnelle mhm. te dee njaaxaanaay ba xam ne kenn ku ci nekk mhm. boo déggee Serigne Touba da ngay yëg sa Serigne ak foo man ci bokk loolu moom moo tax rek xëy na dañ ci dugg bu buñ ci duggee mu jëlaale loolu en compte jamono ju ñuy waxee peut-être ethnicisme fii ci Sénégal débat bi ci réseaux sociaux yi xaw a violent lool euh, Serigne Touba réglé woon cette question de la concorde sociale ci biir néegam d'abord muy fa nga xam ne foofu la bokk di Mbàkke ak soobee mais également moom ak kilifa diine yi nga xamante ne ñoom la jamono woon àdduna nan la doxalee woon ak ñoom bu fekkee dugg nañ ci rek nga ñëw ci loolu c'était ma question en fait. waaw kon dañ ciy dugg rek benn yoon mu nekk <laughs> porte d'entrée bi. <laughs> nekk porte d'entrée defee ñu nuyu soppee sëñ Ablaye Diop Bichri yi. ñu sonn ci man lool. di jataay yu am solo yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi may topp fu ne ci àdduna bi jaarale seen nuyoo ci sama jarbaat sëñ Abdul Xaadir Fall. nuyu tam bu baax sunu soppe bu ñuy wax sëñ Modou ndooy di tailleur bu ñuy ñawal din taxaw ci Medina waaye beral nuyoo ba tey sëñ Mamor Mbacke Habibou mu ngi leen di nuyu mu sëñ Mandoumbe mu ngi topp jataay bi naka noonu soxna Fat Kase Thiam sunu avocat bu baax boobu mu ngi topp jataay bi ak Xaadim Taal original beral nuyoo Adja say joxaane fële ca marché HLM waaye nuyoo sëñ Pape Mamadou Sow bu Palme Biche Fram Voyage ak soxnaam Adja na koy ka beral nuyoo ba tey cubbu gay ku sonn ci ñun la ca mbuur taalibe sëñ Tuubaa bu baax boobu nuyu tam sëñ Ousmane Ndiaye mu sëñ Mbàkke ma dina fële ca Caaroy waaye di nuyu Adja Moomi Kebe ak boroom këram alaaji Abdoulaye Tage mu sëñ Saaliwu ku ñu jàppale nuyu Babacar Diassé borom Global Travels mu ngi ñuy topp ak sëñ Galas Maane Mbàkke ba tey ñu ngi koy nuyu mu ngi ànd ak ñun beral nuyoo sëñ Fallou Gueye ak sañ Sidi Ndaw transitaire nuyu sëñ Sele sàll nuyu sëñ Birima Ndiaye sama soppe sama soppe la dafa may topp lu bare bare bare waaye di nuyu sëñ Matar Dia fële ci Mbirkilaan benn nuyoo kenn ci man alaaji Abdoulaye Dia bu Sénico moom dafa sama soppe la <laughs> lu muy waxtaan lu maa koy waxtaan këram waaye nuyu Serigne Mbuub bu CCBM moom it mu ngi ànd ak ñun ak Baye Matar Mbuub rakkam ak waa kër ga yépp waaye di beral nuyoo sëñ Abdoul Aziz Ndiaye aale moom it ku baax la dañoo daje màkka mu def ci ñun jëf yu rëy rëy moog Lamine Camara ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak sëñ Baara Gueye Clean Oil waaye maa ngi nuyu madame Mbuub soxna Faat Jeng sama tante jooju beral nuyoo tam ba tey sëñ xaadim loo gay del barki démb laa fa jóge moom lu ne mu def ko jàmbar ñu ngi koy beral nuyoo di ko sant moog waa Thiès di beral nuyoo tam Pape Doumbia ca Thiès borom prestige barki démb kër la yëkkati may ma ko àddee sëñ Tuubaa maa ngi ziar bu baax soxna Daba Mbàkke Moustapha Thiir nee na mu ngi ànd ak ñun jataay mu ngi ñuy ñaanal waaw borom daaru salaam dékko nu ngi koy nuyu waaye sëñ Moustapha Seck taalibe bu baax sëñ Abdourahmane loonu xamale nu ngi koy nuyu sëñ Basiiru Mbàkke xaadim awo ba nu ngi koy nuyu waaye nu ngi beral nuyoo sëñ Mamar Diop taalibi sëñ Ndaam Atta moom sëñ Ibrahima Mbacke maag sëñ Abdoulaye Lam xam nañ ko mu ngi yóbbante nuyoom ak mbégteem ku baax la mhm. mu ngi koy nuyu mook soxnaam soxna aji waaye naka noonu nag di nuyu colonel Abdourahmane Ba ca Molde ak colonel Ousmane Faye taalibi sëñ Fàll bu baax boobu ak colonel Ousmane Gueye bu police ma door a ñëw ci laaj waaw mooy sëriñ bi woote muridullahi yaatal ñëpp nañu ñëw ku jëm ci yàlla kon Serigne Touba ci biir mbindam nan la mandargal loolu nga xam ne mooy euh, euh, concorde social ni ñu doon benn wax ne képp ku sama taal taalibe ku wax laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah bu ko noonu ak nan la feeñee ci biir mbindam waaw xam nga moom yàlla da koo dimbali li muy wax da koy jëf xam nga théorie dafa am pratique am moom lu mu théorisé ci ay téeréem jëf na ko jëfloo ko ñi ma yar ñëpp ba ñëpp xam ni lii la bëgg xam nga concorde social mooy xol yu ànd mhm. ñu juboo ñu ñu bokk société bi bokk yéene bokk pas-pas bañ di yàqalante di dimbalante ci njekk ak lu baax na ko sunu borom digle te bañ a dimbalante ci lu bon ak noonoo su ko defee sëriñ bi bi mu ci bindeet da koo jëf bind mi mooy boo demee ci téeréem bu ñuy wax masaalikul jinaan fii jam'i ma farraquhu daymaan ñu jàng tasawuf doyloo nañu téere ba lool ndax dafa bàyyiwul dara ci diggante li siyoot yi waxoon ci diggante li sànnoo si wax ci diggante li Cheikh Sidil Mokhtar al Kunti yu wax ci diggante li imaam Ghazali wax yépp sëñ bi da koo résumé def ko ci biir Masaalikul Jinaan ci luy defar nit ba jikkoom rafet ba dootul iñaane kenn day bëgg ñépp ngir jëmmi yàlla mi leen sàkk soo demee ci téere boobu dafa lijjanti woon problème yii di xew ba ren bu ñu seetloo waa Sénéra dem nañ bay bëgg a dakkal sax jataay yi te loolu lépp ñàkk dégg jàngale sëñ Tuubaa tax rek waaye bu ñu ko déggoon dinañu xam ni moom dafa tàllal loxo ñëpp pour ñu àndoo nekk benn. jataay yi kenn mënu koo dakkal. waaw dafa wax ni. dañ dañ doon jéem rek. waaw du sotti. kenn wax ni waaw. dafa wax ni moom sëñ Tuubaa fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahida sawaun intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaabi fa kulluhum yad'ul muridina ila taati rabbil arsi ay suma jala dañ tuubaa wax loolu loolu mbindam la dafa wax ni bépp wird jubluwaay bu dëgër la wax na ko ci masaalik ci jëm ci sunu borom wird bu waay jàpp nag bu waay jàpp mu ni moo xam nga jël wirdu cheikh ahmadu tijaani abul abbas radiallahu anhu wala nga jël wirdu abu asan assazali wala nga jël wirdu cheikh abdul qadir jilaani bum ci doon la wax. dëgg la taalibe jàpp ko di ko sellal wirdu wi dina ko yóbbu ba ci yàlla boroomam mu am fa ngërëm. te wirdu wi du ko yàqal du ko lor. feek mu ngi tënku ci liñ ko digal bi muy cité mënoon naa cité boppam da lay wan ni moom nekkul ci ay tënk ak di xatal déedéet daa yaatal dani moo xam nga jële ko ci cheikh abdul qadir jilaani wala nga jële ko ci cheikh ahmadou tidiane yi wala nga jële ko ci ñu dul ñaar ñooñu sax ci nitu yàlla yi bu mu ci doon nu ni ko waaw Mbàkke mu ni jàppal te sellal da nga àgg ci yàlla kon loolu da koo bind théoriser ko waaye dinaa la wax fi mu ko pratiquer boo seetee ba tey moom sëñ Tuuba mu ni wàllu yu yàlla bu mu doon maa ngi lay dénk bu ko weddi bu mu doon rek te mu wóor la ni kiyéngi ca yoonu yàlla mu woote màqaamaam bu ko weddi xanaa xamoo alaaji Abdoulaye Mbay peex hmm. gëm lu dul dëgg moo gën fuufu weddi luy dëgg la ilaha illallah kon weddi dafa dangereux kenn warul di weddi su la mbir uh, umpee rek maandu moo gën waaye bul wet sëñ Tuubaa dani ci masaalikul jinaan lii may bëgg a wax ku ñuy wax Abdul Wadud moo ko waxoon maa ngi leen koy jàngalaat pour ngeen roy ci wax jooju dani kalaamal awliyaay lastu afhamu dani kalaamahum isa dahaaka ya balid fa qul zaki Abdul Wadud kalaamal awliyaa lastu afhamu li ànd nii ana ana wa hum humu sëñ Tuubaa nee na waxu wàllu yi bu la jommalatee ba mënu ko comprendre yow mi nga xam ni intelligent woo wala boog initié wu ñu la ci sax soufisme ba nga xam ci dara nee na bul ko weeti di gaañu waxu wàllu yi buñ ko waxatee dañ koy lëm seen wax bu wax bi profond wee ci yow wala mu xóot nee na bul weddi di gaañu mm. maa ngi lay digal nga def na Abdul Wadud defoon soo ko mësee wax wàlluy sàngam nee na nàngam yàlla may na ko day wax ah man kat àgguma foofa ñoom dañuy ñoom man may man waaw sëñ bi ni kon dénk naa leen génn di jëfandikoo noonu waaye bu leen weddi kenn daal di wax ni maa ngi leen di xamal ni ñoom ñépp seen itte mooy wommat taalibe yi leen topp jëme leen ci njub lii rek lañuy woote fii lañ jëme seeni taalibe daal di wax moom sëñ Tuubaa fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah maa ngi leen di dénk képp ku ngeen déggati gémmiñam gii génne baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah bu ngeen di seen noon na ngeen ko ca génne bokku ca du seen noon bu leen ko jàppe noon ndax tudd na baatu seere yi gëm na yàlla mi leen sàkk gëm na yenant bi tax ñu sàkk leen kon nekkatul seen noon lii la sëñ Tuubaa jàngale loolu mu bind nag mu jëf ko jëf loo ko njabootam 1921 dama lay jox date bi nga xamee ni magam wàcc na liggéey magu sëñ Touba mooy magi mag maam Mor jaar borom Saam ñu ngi tudd léegi sëñ Abdul Gafoor doomam la bi mu wàccee liggéey ci bisu altineem jooju mbokk mu baax ci diine di mbokk sëñ Touba diine ji ak réew mi di alaaji Abdoulaye Ñas alkawlaxi mooy wéy juru maam Xalifa Ñas ak maam Baay Ñas yàlla yàlla dolli leen ngërëm seen wéy jur dafa façon kóllëre ak Maam Jaara Borom Saam ca Saalum woote Mabba Jaxu Ba kóllëre googu tax ñoom ñaar ñu ni ku ci njëkk génn àdduna sa moroom rikk waay ki ci des na ñëw sarax la ñetti sóoratu yaasin ci sa bàmmeel Maam Mor Jaara ku njëkk dem 21 ans la Maam Jaara dem Alaaji Alaaji Abdoulaye Niass 22 mook Seydil Haaji Malick ci la ñu dem moo tax dafa ñëw moom Alaaji Abdoulaye ñas jàng ñetti suuratu yaasin jox ko haddiya maam jaar Jaara borom sax jaale ko sëriñ Touba Serigne bi dafa bég ci jëf jooju ndax moom li ma xamoon muy ñëpp ànd nekk benn. ba yëkkati tafsirul Jalaalayni kaamil la woon. mag ñi xam nan ko daal koy jox maam Abdoulaye Niass ni ko loolu dama ko jox haddiya ndax bég ci jëf ji nga jëf ci dundal diine ci maam Abdoulaye bi mu demee këram moom it dafa bég ba yebal taawam maam xalifa Niass moo jur sii Sidi euh, Lamine ñas ji jur sëñ Ahmad Khalifa Niass mu baax mii nga xam ni saa su waxee lu rafet lay wax euh, moo leen jur waaye dafa yebal maam xalifa ni ko demal nga ziyaari ji sa wéejur woowu Cheikh Ahmadou Bamba ñëw na fii njaareem moom maam xalifa Niass bi muy ñëw sëñ Touba yónni maam Cheikh Ibra Fall ni ko soo demee nag ma gàttandul sama doom mooy ñëw tey ndax ni ñu demee maam Cheikh Ibra bi mu ñëwee dajee ak maam xalifa dani ko xuma yan bagage nga yor lu mu diis diis ñëwal yéeg ma fabaale la boot la yóbbul la sëñ Tuuba maam xalifa ni ko ah man maa ngi ndox am naa tànk dara daluma mu ni ko waaw loolu dëgg la waaye man ni may jëfe mooy ni sëñ Tuuba waxe man bu sëñ Tuuba joxee ndigal dama koy exécuter à la lettre ma desal dara ni mu ko waxee laa koy defee su ma waxoon dem leen ànd ñëw yaag sama gan googu kon dañuy ànd dox waaye dañuy demal andil ma ko ku ñuy andi dañ laa war a yóbbu yéegal maa lay boot ah, daal ko yóbbul maam maam xalifa ci boppam def na xasida bu rafet di ci wax ay kàddu yu rafet jëmee ko ci Cheikh Ahmadou Ba. ma nga ne. ma nga ne maam xalifa 1879 la gane àdduna. mooy bàyyi Ahmed Khalifa génn àdduna 1959. moo mooy bàyyi Ahmed Khalifa Niass jàmbaar ji. ku am xam-xam la digganteem ak Ibnu Maaya ba la mu ko waxoon ku ne xam na ni ba mu ŋàññee yarantu bi ba mu bindee ay baytam misil la ko dóor. maam xalifa mii borom wilaaya la ku rëy xam-xam. wallaay wallaay bu kenn moo waxoon antalil kaw ni bëh jëtun wa ba aahu wata jallat bi nóori ka zalmaaw yanant bi la doon waxal moom mii la yebal mu ñëw def xasida jëme ko ci sëñ Tuuba déggal lam ca wax benn baat bi rek doyoon na sëkk dani huwal jalaalaani tafsirun li mansibikum misbaawu ilmin ka dawxi subxi lammaaxi nee na sëñ Tuuba yàllaa ko wàcce ci jamono mu mel ni ku ñëw ngir di firi alquran ji ñuy jàng téere bi alquran am na téere bu ñuy tiim di jàng waaye jëmmi sëñ Tuubaa alxuraan la ju ñëw di firi alxuraan nekk jëmmi alxuraan daal ni làmp leer la boo xam ni dafa feeñ ci fajar mbiram di leer di melxat ñépp di ko gis maam xalifa lii la seereel wéy juróom bu baax woowu nga xool ba tey bi maam Abdoulaye ñas génnee àdduna 1922 Seydil Hadji Malick génn àdduna 1922 seen génn àdduna am ñu ni semaine bi sax tuuti la teg dañoo jege. ay fan yu néew takkatuma fan yi damay bañ juum waaye fan yu néew a dox seen diggante waaye bi nu génnee àdduna ñoom ñaar Cheikh Ahmadou Bamba boobu mu ngi résidence surveillée Njaaréem pour la concorde bi mu doon dox dafa tànn fukki nit ñoo xam ni sëñ Tuubaa gërëm na leen daal di wax ni yenantu bi alayhi salaatu wasalaam tànnoon na fukki nit tudde leen al asratul mubashara bil janna yenantu bee jël loxoom teg ci fukki bopp ni warul naa leen seen dem àjjana ak lu ngeen mën a tey def da ngeen tàbbi àjjana sëñ Tuubaa ni loolu yàlla mayoon yanantu bi dagaan naa ko ci yanantu bi ba may ma ko ci fukk ñi may tànn ñu dem jaale jël ma sama ñaari mbokk yooyu délégué leen ñu dem kaw la dem Tiwaawan waaye xoolal alhaaji Mbàkke Buso maa ngi ziyaara bu baax sëtëm bu baax bi sëñ Gede Buso mu sëñ ñaaña léegi la ma doom sëñ mu laay wax ne ma mu ngi topp jataay mhm. sëñ Mbàkke Buso ku nekk xam na ni moo nekkoon muftil bilaat sëñ aboo bu so ca Pikine ñu ngi koy siyaar taalibeem bu mag muftil bilaat lañ ko doon woowee moo nekkoon savant dëkk yëpp sañ Mbàkke bu so bu téere yëpp lakkee nee na ngi indi ma bind ko sëñ Tuubaa wul woon ko ci lépp muy doomi nijaay ci moom di doomi bàjjan ci moom sëriñ bi gërëmal ko boppam ne ko yow dama lay wéttalikoo moo miraas sëñ Tuubaa moo jullee sëriñ Tuubaa moo génne xibla jumaay sëñ Tuubaa sëñ Omar bu ñu ngi koy ñaanal mu yàgg sëñ Omar Bousso ñëpp a ngi am naa tawféex mu jël téléphone am woo ma man di ma sant ci waxtaan bi sëñ Mbàkke dëgg la dëgg la de sëñ Mbàkke Bousso la sëñ Tuubaa yónni mu def cay mbayit mm. waaw man ni taalibi sëñ Tuubaa buy doomi nijaay ak doomi bàjjen ak sëñ Tuubaa moo tax nu war di rafetal mm. xoolal moom li mu woy ci sëñ Alaaji Abdoulaye Niass wooy ko ci Seydil Haaji Malick ba pare nekk deretu sëñ Tuubaa di rakkam di taalibeem bu fekkoon sëñ Touba jàngalu leen yaatal du ma a woy loolu. lan la wax. dani yaa salmatan fi diinina al islaami min xalqi qarnay hëmati l aalaami asayidayni l aalimayni naasikayni l muslikayni li hadrati alaami shamsun wa shamsun aama shamsin gaabata fa bakal wara li takaasufi l aslaami déggal wax nee na man sëñ Mbàkke bu so maa wax ni tey diine lislaam am na lëndëm lëndëm bu ci daanu lu tax lëndëm am mu ne tey ñaari kuyu islaam ñoo fi jóge muy seydi Xaaji Malik ak Seydil Abdoulaye Niass alkawlaxi lii moo tax tey ñu am lëndëm daal ni woo naa njàqare ak tiitaange ci ñaari ponk yi tuxu tey ci senegal génn fi daal di wax ni su ngeen bëggee xam ñi may wax ñooy ñan mooy ñaari boroom xam-xam ya bu ñëwee diw am na xam-xam na ko boroom xam-xam yi wax moom moo ni ñaar ñoo ñooy ñaari boroom xam-xam ya ñaar ñu sóobu woon ña ca diiney islam musuñu koo wàcc ñaar ña daan jàpp seeni taalibi di leen xaddamal di leen teg ci yoonu yàlla ñaar ña nga xam ni dañoo sóobu woon di sellal tey ñaari kàngam ya dem nañu daal ni tey daal atum jant mi mooy atum sumoos 1922 ci ci hijriya mu ni jant ak janta dem bee jant daal daal nay suuxe Tiwaawan bële suuxe Kawlax daal ni kon na mindeef yëpp dëgg ma di jooy ñàkk nañ tey ñaari jëm daal ni kenn ki min bar yaa ngi koy jooy Seydi Alaaji Maalik lay wax mu ni min bar yaa ngi koy jooy njógu fa am mu ni Seydi Alaaji Maalik min bar yaa ngi koy jooy dëgg la it yi ñu daan tafsir nu ngi koy jooy kan moo ñuy dimbaleeti dimbaleeti bu problème mu fiq posé woo mu ñëw lijjantiku ko dégg li muy wax Seydi mu ni ana kan mooy jàmbaar ba mel ni gaynde ba mel ni Abdoulaye Niass nga xam ne daan xeex tubaab yi di jaamaarloog ñoom ngir yëkkati lislaam bàyyi maam xalifa demoon ba Kaolack jóge Kaolack dem ba seeti imaam Zukkayri ji moo demoon ba imaam Zukkayri ji mu koy seeti ngir bëgga a tasaare wirdu cheikh kon mu ni ana kon kan mooy melati ne gaynde googu alaaji Abdoulaye Niass alkawlaqi mu leen di woy woy wu rafet woowu kone ne mu lay tagg te moom mi leen di tagg taalibi cheikhul xaddim la waaye mbokk yi xoolal jëf ju rafet ji nga xam ni dox na ba tey diggante waa kër sëñ Touba ak waa kër Seydina Limaamu Laay al Mahdi 1949 bi nga xamee ni maam Isa Ruuhullah génn na àdduna. gaañaa ngi xam ngeen ni mooy doomu maam Limaamu Laay al Mahdi 1949 la génn àdduna Cheikh Mouhamadoul Fadilu sëñ Fàllu daa woolu werekaanu yoon wi sëñ Musaa Ka ko dama bëgg nga woyal ma ay woy maam Isa ruuxu laa sama mbokk moom mu génn àdduna defaral ma ko ak jaale te ngeen dem àgg yoof ànd ak bàyyi maam ma njaay mu jàng ko ñu jaalee ko waa yoof sëñ Falloo ko ci jox ndigal sëñ Moussa naan yéen gaa yi siisaa ngeen déglu Moussa mu jaale Isa doomi limaamu doomi limaamu dëgg la ñoo dëkkee laay laay ñoo ñàkk caay caay ñoo sagal baay laay kenn du limaamu dëgg la woy ko woy wu rafet jox ko sëñ Moussa Ka mu ànd ak bàyyi maam ma njaay ñu koy nettali ci yoof sëñ Touba moo jàngal loolu njabootam waaye ku ne dégg na fii ci Sénégal sunu sang bu tedd ba maam Abdoul Aziz Sy Dabakh Dabakh Malick mu nekk falil boppam du samay wax kaset la ku ko déglu dégg ko uh-huh. mu ni demoon naa seeti sama mag sëñ Modou Moustapha Al Karim dëgg la bi may dem maa ngi ko fekk tindoo di mu boole maag sëñ aarif loo chauffeur am ni ma demal gaaw ñu dalal la ñu dalal ko mu ñëw nee na bi mu ñëwee daf maa dafa bëgg ci man ba jox ma kaamilu jimbilang Mm-hmm. muy kaawin bi mag ñi daan yor mm-hmm. teral ma teraanga yoo xam ni wa wane mbégteem ni ma bala ngaa ñibbi nanga jaar ci sa baay sëñ daam Abdourahman loo na nga jaar ci sa baay maam Cheikh Anta boroom gaawaat nga ziyaare leen door a dem Tiwaawan mu ni ba ma ca jógee ñëw andi na coow loo xam ni dañ maa woolu bureau politique bi nekkoon Saint-Louis ndax gouverneur commandant bu ñuy wax commandant négrier moo ma woo bi may dem maag góor gi Saïd Nourou Tall ñoo mm-hmm. na bi àggee commandant bi sax joxuma chaise ma toog damaa ñëw mu jox euh, sëñ Saïd daal di toog moom léegi ne sëñ Saïd di ma jox chaise nee na ma ne ko bokkul ci civilisation nga seet si ni teralu la jox la teraanga joo tooge nga koy toogal damay bàyyi ba mu jox ma fu ma toog door maa jox fu ma toog mu laaj ma ni ma déggoon naa da nga demoon Touba seeti sëñ Modou Moustapha mbokk yi bu nu réer lii tubaab yi doon bañ tey ñu ngi leen ciy jàppale mu ni ko dégg naa danga demoon seeti sëñ Modou Moustapha maam Abdou ni ko waaw mu ne ko dégg naa sa jox na la xaalis bu bari mu ne ko lan ma jox moo la gën gën ma ndax alxuraan ji mu ko jox. ndax jox na ma loo xam ne soo waxee lu dul dëgg donte yow yaa yilif tey réew mi sañ naa jël sa wax sànni ci àll ba te doo ma mënal dara ni ko te tey na mujj tey nga may woo lijjanti bu sama dem Touba. sa ñëpp doo ñimi ni ko. Hmm. ndax labbi bi ci église bii ci Ndar ak bi ci église bi ci Dakar bu nu amoon conclave réunion catholique di waxtaan. ndax di leen woo di lijjanti lu ñu doon waxante mu ne ko déedéet mu ne ko na mujj tey maag moo bokk deret ñoo bokk maam bokk lépp sama mag la ah, kenn kenn leen jur kenn waaw si euh, sëriñ Abdou waaw si jaaji waaw Ousmane Mati Mbakke waaw sëriñ Abdou safetu nag ndeyam xëri Mbakke moo tax nag bi tarixa yi defee ay frontière kii ko ñaggi moo ko ñag moo ko ñaggi moo dem Touba dem Cenaba dem lay dem fépp réew mi nag a ngi nii. Mm. boo tuddee Serigne tubaa mm. da wax ñu baax ñëpp. wallaay ndeysaan gis nga bi nga duggee léegi laayeen. waaw sëñ Ablaye Thiaw. waaw kenn mënu ko. wallaay ni taf ni maam jaara sëñ Ibou Sakho ni tëf ni Gaynde Fatma. Ibrahima Sakho. Cheikh Oumar Foutiyou taal mii. topp na leeru sëriñ tubaa xanaa la waxoon ak maam Mor Anta Sali da ci ñëw. waaw dinaa ci ñëw. réew maa ngi nii. Mm-hmm. benn bopp la kenn du ko xar ñaar. déedéet te Abdoulaye Bichri kuy xuloo di xuus booy laayoo te fasu. dëgg la. Abdoulaye Bisiri mën a dem penc yóbbu fa dëgg moo ko gën l'islam la ñuy waxtaane mag ñi amuloo woon problème dëgg la nun ñoo am problème seex hmm. al islam Cheikh hmm. Ibrahima Niass hmm. alkawlaxi aj màkk gi mu mu njëkk a def 1937 nee na moo ko dikkal xëetif mooy luy wax ak yow te gisoo fi mu toog ci bërëbu yanant bi am lu ñëw ci noppam ni ko yaag sëñ Touba yéen a gën a bëgg yanant bi Sénégal mu ñëw waxal ko boppam xoolal boobu seere bu rafet mag ñi amuñu woon problème ñun ñoo am problème sëriñ bi li mu jàngal njaboot gépp mooy bëggante ak njabootu islaam sëñ Moussa Ka nee na daawul mere kenn ku dul ko xotti war may diine ji waaye képp ku fi bàyyi diine ji di ko war warmaal ak di ko màggal du la def dara lu ñaaw du la ko wax te boo ko tooñoon mu jéggal la te gis ngeen sëriñ Touba mbokk gi sëñ Moussa Ka dikk na ci te sëñ Touba ko yar boo demee dafa wax ni Mawdo di Bamba Bamba di Mawdo ku leen di féewale xamoo looy wirda ngir mëti Mbàkke maam maaram mooy nday Ousmane bàyyi Mawdo maa ko xam mm, mooy ma dëgg la Ousmane mëti Mbàkke daal ni Mawdo nga yor shariatul mutahhara Bamba nga yor xaqiqatul munawwara Mawdo nga yor wirdu wa booleeg sart ya Bamba nga yor dëddoom nga booleeg mayam ya man njàmme mii woy maay ki leen fi nekkal te def sëtub maam maaram buy dekkal maam maaram sunu maam ju baax ja wàcc na sëtëm yi yàlla nañ ñu dugal àjjana amina amina nee leen amina mhm. yéen gaa yi Bamba ak Maodo ngir laa amina gis nga nag lii ne nay sa <coughs> mooy réew mi mooy Sénégal mhm. mag ñu baax ñu ko ci tudd mhm. wax ay mayam ñëpp bég waaye lii yàlla defal sëriñ Bamba nag képp ku ni dus ko fi tuddee baa du fi jibee da nga génn réew parce que nag waxtaan wax dëgg ci gën yàlla mooy def lu ko neex dafa am benn bis ma ànd ak Cheikh Mahamadul Mourtada góor yàlla ki tasaare ji ci Afrique ak ci Europe muy dem Gabon ñaari at mun ta dem Mayomba président Abdoulaye Wade mu baax mi taalibe sëñ Bamba bi ni ko woo bongo ni ko tey doomu Serigne Touba jooju ñëw su ñëwee na dem Maayo Mbaay na nga ko jox sa avion bopp ñu dem bongo teeru ko ca la ko recevoir woon ba ñuy génn bongo ni na ñëpp génn may ma sëriñ bi xam naa du dégg li may wax may du ma dégg li may wax waaye pendant dix minutes mu di ma xool ma di ko xool. ndeysaan ñu dem dellu bunt yi tëj ko mook Cheikh Mamadou Moutara mu jël avion jox ko boole noonu meeru Maayo Mbaar ak sëñ Fallou Boussa mi nu jooy ba léegi noppeegunu nu cëppeelu Maayo boo nga décrété suuf si jox ko Cheikh Mahamadul Murtada te Mayomba Sëriñ Tuubaa toog na fa juróom-ñaari at tegul cin tegaluñ ko cin gisul ku ni dama ni ma nga kii kay mu ci ñëpp sëñ Bamba waa jaa ngi. wallaay ndeysaan. boo demee boo demee boo demee Amérique kër sëñ Bamba nga Detroit. kër sëñ Bamba ngay Memphis kër sa kër kër sëñ Bamba nga Cincinnati nga dem nga dem nga dem Amérique nga dem Italie kër sëñ Bamba nga Rimini kër sëñ Bamba nga Cagliari kër sëñ Bamba nga Nuoro kër sëñ Bamba nga Pisa kër sëñ Bamba nga bërë nga dem Allemagne kër sëñ Bamba nga bërëman lii réew mi ku def jaloore ñu wax ko dëgg la ah, dëgg la nit ku def jaloore cim réew nga bàyyi ko fi bëggee a jëggaani te sëñ Abdou Aziz mu baax mi mas na julli korité ni gaa ji lu ngeen di jëggaani waaw ah, waaw indiwul waayu si daaji Malick bu la indi ci Serigne Touba ne li saa bàyyi Serigne Touba wax sañ Bamba ku ko fi bàyyi di génn looy wuti. lii réew mi lii mag ñi du nu am mag ñu mel nii nag ci réew mi te waxtaanu leen di tefalu kenn mënut a tee ñu wax leen. Ah, waaw dëgg la. ndax euh, euh, euh, benn rajo fi ne woon ak benn télé. tey télé yi ci yëpp yëpp taalibe yi giiroo nañ ko. demal kër si kër sëñ Bamba télé yi di jeex demal kër Alaaji Malik tarixa yu ne am nga télé kenn mënatu la tey nu tudd tarixa yi. bareetul maa ngi ñëw Cheikh Moussa Ba ci yow laa jëm ah. est-ce que loolu mat naa wax macha allah dëgg la dëgg la. maa ngi may saari Sénégal moom moom ma ko ba man a dem Ibrahima Ibrahima Diop bi nekk domaine euh, taalibi sëriñ Daam Atta moom it mi ngi lay nuyu ne moom sëñ ba rek ko ñor papa jërëjëf ak sëriñ Abdou Lahad moom yaa ndey Lo mu sëriñ Fallou may na la terrain ndeysaan sëriñ Abdou Lahad Lo may na ko teere bu yaandee loo bu sëriñ Fallou Samba Diakhoune ñëpp ñu ngi teewlu ñu ngi woo sànq ñu ngi teewlu ñoom ñëpp mboolem baax a baax ak kuréel bi ñu àndal moom ñu ma xas matul am daal ak soppe xare yëpp soxna am ñooy moo Cheikh Issa Dieng mu ngi teew ci laay bi di bu baax di jàmbaari Cheikh Issa ak suñu Mor Aaj moom it di jàmbaari boo xam ne yàlla nañoo boole kóllëre muy ku baax jàpp nañu ci lu bare bare ñu ngi siyaar ñëpp na góolal yëpp ñëpp ak sëñ Fallou Ngom xam ne moom it jàmbaari sëñ Tuubaa la ba ne euh, li ñu cërale woon ci waxtu ñu ngi ma koy bind sànq ba léegi ni ma waxtu yi daanaka li ci desoon sax biñ ma koy wax sànq ba léegi ay juróomi minute ak lu nekk waaye sa mbaax sa mën rafetal ak xam-xam bi ngay tegtale euh, neex na neex boo xamante ni kenn mënu laa dagg waaye faw alxamis bii di ñëw incha allah taala noonu lañ koy eggalee noonu lañ koy eggalee amoon naa fi nag ñaari yóbbante benn bi mooy waa Bawol communication Cheikh euh, Gueye jox na la benn téléphone damay bañ wax téléphone bu muy nekk publicité. waaye waaw kay mu ngi nii yónnee nañ ma ko beneen bi ci des mooy euh, yónnee waat nañ ma beneen addiya ñaari yëpp nag man bu may wax damay téye ci sa loxo loxoog loxo. damay bañ ñu génn rek ma ni déedéet. bu ma ci wax daf may wóor. beneen bi ci des mooy euh, global textile. noonu la ñuy wax global textile nee na ameel na la 7 mètres. kooku man it maa la yóbbu ba ci moom li ma sol démb rek ñoom ñoo ma ko jox man ak yow ay àndaat ba foofu ma ne la loxo ngi nii loxo ngi nii yaa ma ko waxoon démb jox ko ko mu ngi nii taxaw bu ko defee nee ne defe naa loolu lañ cërale woon ci waxtu ay euh, ñu joxoon xam naa jeex na dañuy euh, rek après su ñu tàggatoo ba pare. Mhm. Euh, jox kii di sëñ Moustapha mu tëj waxtaan bi moom tamit jërëjëf béggalaat téléspectateurs yi. jërëjëf xanaa di sant bu baax rek waa boutique Pays. bi ñoom Mohamed euh, Gueye ak euh, Aliou ture mbaxana mu rafet mi ñoom ñoo ma ko jox mbubu mu taaru mi ak ñaw bu rafet bi sous préfet bu plateau jibi jàlloo moo ma ne sol ko demee ko grand plateau kon moom it euh, ñu ngi koy ziar bu baax sànq Saliou dafa wax lu jëm ci daamaaru sëñ Ablaye daamaar nag ku ko wax rek man faaw ma tudd sëriñ Mamor Abibou moom sëñ ma Ndumbe ci teraanga ji nga xam ne nii moom la ma defal ci turu mboolem njabootu sëriñ Touba. waaw Fallou Diop Fallou Diop Gabon itam Fallou Diop Gabon itam mu ngi ànd ak ñun euh, sëriñ Mbacke Dieng bu ndogal dëkk Touba Ndamatu moom it mu ngi ànd ak ñun waaye di gërëm bu baax nag euh, sëriñ Umar Ngom bu Daaru Salaam Ngom. Euh, ci yéene ji nga xam ne nii am na ko yal na ko yàlla mottali ci barke sëñ Touba kon nen yaakaar naa ne. xam naa dañuy bàyyi rekk di sëñ Abdoulaye Diop Bichri mu tàggatoo ak téléspectateur. waaw dama bëggoon balay Ablaye tàggatoo. Uh-huh. ñu ngi waaj léeg-léeg xadaru soxna May. te soxna May day doomi sëriñ Touba. Uh-huh. tàmbalee woon ko ci ñaari ginaar ba ci ñaari junni ginaar sëñ Basiiru Saar jaamu sëriñ Touba. ak njaboot gi di ko indil. te alxemes jiinu jëm ci la ñuy waaj. bisu laylatu xadar sëñ Fallu joxoon ko ko te soxna may moo mujj ñëpp sëriñ Touba te boo duggee ci nekk fàtt sa sa boo dikkee laaj ko kala kala fa mujjoon bu la ko joxul doo ca jox kon ñëpp a ngi waaj laylatu xadar na ko buggaan daa defee it ci lépp lu xew tuubaa fas na ko yéene defe noonu ndax Cheikh Abdou Gaynde Fatma ak nijaayam sëñ Modou Mahfous ak soxna Astou Bali kon nun murit yëpp itam nu waaj Ablaay mm-hmm. jëm nag laylatu xadar fekk si Modou Mahfous. wallaay ndeysaan. sa domaine du ci génn. Uh-huh. Euh, yow moom ku la xam xam la ak fas. waaw. Euh, Serigne Omar Baaw. waaw ngi topp jotaay bi bu baax. moom moom euh, jël naa fas oto la ma jox. waaye wa wàllu fay. ca da ca Mali. ak soxnaam. tubaarkalla ñu ngi topp jotaay bi. jotaay bi. léegi boo bu bugaan booy woon nuy dem ba bët set. <laughs> ndax nag mag ñu baax ñu ci réew mi jar na ko. xanaa di siwaat ci ki def nii rek sama doom ji kati création nee na maa ngi euh, sant ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, noonu nag Sëñ Tuubaa dañoo defal loo xam ne jomb nañu tu kenn mënuñu ko ku dul moom. kon li ko mën a fayee. mooy naan fexe ba defale ko suñuy jëm. doon ay jullit xàqan. di jaamu yàlla te ci sunna doon ay murit saadix nañu fexe ba kenn ku ci ne ku ñu woo ngay wuyoo Mbàkke wala ku yaakaar Mbàkke nanga nga defar sa jëm ba kenn du ca bi Serigne Touba. dëgg la na defar say wax ba saw làmmiñ doo ci lool benn julit waaye na defar sa comportement bu ku la gis ku ne ne ak sa murid maa ngi sant Cheikh Mbacke Ndiaye faama moom Adja Fama Fall Serigne Cheikh Awa Ballam Serigne Falilou Adja Binta Amar Serigne Khadim Sylla nag baayam bàyyam taalam waraan ñëwul sëñ mbakke lu ma sol moo ko ñëw uh-huh. eh, El Hadj Baara moo génn cuub bi caat sama rak maa ngi ko ziare salaamaaleykum wa rahmatulahi wa uh, ñu ngi leen di sant mm-hmm. sant uh, mbokki réew mi ñu topp yëpp li nuy wax lépp yéene ji mooy bëgg ñépp defaru ci ak ñépp jàng ci ak ñépp jariñu ci bu fekkee wax na dara lu dëng loo xam ni déggin waxay na leerul nañ ñépp jéggal yéene ji moo doon lépp jub nu ngi santati sëriñ Touba Xaadimu Rasul di gën a yeesal suñu njébbal ci moom jaare ko ci sëñ Amsatu mu Serigne Son yi di sant njabootam gépp nag euh, di nuyu sëñ Aboo Baraka euh, xalifab Serigne Fallou man daf maa bëgg def ma doomam rek semaine bee rek la ma woo téléphone waxtaan ak man lu yàgg maa ngi nuyu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké muy sëñ Cheikh Say mi nga xam tey suñu kër mooy xalifa ba ah, toog toogaayal Serigne son yi maa ngi koy nuyu nuyu rakkam yépp nuyu njabootu sëñ Modou Moustapha Karim nuyu njaboot gi yépp jaar doore ko ca sëñ Ahmadul Mokhtar ba ci njabootu sëñ Murtada jaar ko ci sëñ Mamor bàyyiwuma kenn njabootu sëñ Abdoulaat njabootu sëñ Abdul Xaadir ñépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu taalibe yépp yi ñu doon seetaan di nuyu këru diine yëpp di leen bége di ñaanal ñëpp yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp waaye di beral nuyoo Mandiaye Ngom soldaaru sëñ Touba dafa sonn lool ci yii nga xam ni day nekk ci wàllu internet bi man kaw kaw laa ci du ma ko xam ñaare moo ma koy topp tool di ko yaatal euh, kon yàlla na ko yàlla fay yiw taalibi sëñ Murtada son yi di leen sant yéen it bu baax sant boroom kër gi bogaan li ma waxoon ci njaal benn rek nit ku nekk koo ni na ma ko def ni mu la defa tax te fonk nan tax bu yàggul defe naa ci tam xarit gi lay toll soxla naa fi palaato boo xam ni bu ma ko doon fay dinaa joxe juróom-ñaari million mu may ñu ko te yàlla tax ñu ñëw toog def ko fii ànd ak suñu pib yëpp loolu nag ku la fonk koy def sëñ Abdul Karim Faye kam sikiriñ maa ngi koy siyaar bu baax dëgg la dëgg la waaw ah, di ko nuyu di ko sant di sant nag soppe yëpp damay bañ a lim juum waaye amul benn région bu nekk senegal lu dul fu ma dem nañuy def ci man damay tiit sax sama gars yee xam nan ko. sëñ bi rek a tax su ma jaaree ci marché. sëñ bi dong te sëñ Touba rek lañu bëgg lañ ma bëgg kon nag man it war naa leen a delloo yëggoog ci sëñ Touba maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di nuyu waa réew mi ak ñi ci bitim réew bàyyiwuma kenn ñëpp maa leen di nuyu deen sant di leen sant bu baax yàlla na defal tawféex. di la jaajëfal ñoom waxtaan yi nga xam ne suñu papa ya fa nekk bu demee ci ñoom la ñu nekk seen ziar bi xam nañ dara. dëgg la waa Brésil Milan Bergamo ñoom ñëpp ak Espagne Palma ñoom Cheikh Lo di leen ziar baax si Aliou Diouf di leen ziar si Cheikh Mati Ndiaye ñëpp di leen ziar baax soxna Ami France di leen ziar soxna Ndeye Sall suñu wëleere ñoom ñëpp waa Gambie nga xam ne suñu dëkk la nga berke mi jógee Cap Skirring ak waa Kafountine ñu teral leen ngir jëmi seen Tuubaa ak Bignona ak fépp Ziguinchor ñu ngi leen di sant bu baax ñu ko suñu Ablaay wax rek ñun dañuy teral ngi sëñ Tuubaa kon nag ñu ngi sant ñëpp ñëpp boo limee sax ki nga war a jiital ki nga war a jiital ngay jëkk ngay fàtte kon ñu ngi jégalu bu baax ku war a lim te sëñ Moustapha am na loo ma ameel hmm. moom lay tëjee xanaa. xam naa loolu lay tëje lay tëjee ah sëñ Moustapha mais maa ngi ciy ñëw léegi dañuy bàyyi rek Fatou Abdou moom itamit mu tàggatoo. remercier voilà nee na ñi ngi remercier bu baax sëñ Abdoulaye Diop Birché di ko ñaanal yàlla na ko Serigne Touba sàmm bu baax a baax parce que xol yëpp tooy nañu et que li muy wax mu maîtriser ko bu baax a baax nuyu suñu papa yi ak ñi ñuy jotoon a nuyu euh, di wax nag ne ki nga xam ne mooy sëñ Abdoulahat Fall Euh, di xalifa daaru xafoor mi ngi lay bégee bu baax a baax sëñ Mama Sugu également bu daan mi ngi lay bégee bu baax a baax a baax euh, ñooñu ñooñu ñëpp daanaka am nañu mbégte ci plateau bi ak waxtaan yi nga xam ne yëkkati ko ko fi euh, noonu it ki nga xam ne mooy sëñ ma bu sëñ Abdaz Baara moom it mi ngi am mbégte ñu ngi koy ziaraale di ko nuyu di remercier Eh, Khalifa Mbergane li fa couture moo jaar ci yëre bi maak yow sunu musoor maman moom moo ci jaar xam na di nga ci ñëw mais également fulaar bi ñu teg sunu wet ngir sellal guddi gi ki nga xam ne mooy walin Fall la reine du fulaar moom moo ci jaax ñi ngi remercier ñëpp nen ne d'accord di la jaajëfal bu baax a baax Fatou Abdou xam naa euh, euh, wax nga dëgg di remercier euh, walin Fall ci borom fulaar yu rafet yi ñoom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax maman Diallo moom moo ñu musóor bu Louisa Gendy ñoom tam ñu ngi koy remercier bu baax a baax ah papa. wallaay jigéen mu sóoru. dëgg la tey tey tey tey daaneel nga plateau bi. papa di la bu baax a baax yooyu tamit kon maman Diallo bu Louise Agende ñu ngi koy remercier Ama également pour la tenue euh, doomu ndeyu euh, Mbose Samb xam naa depuis sànq ba léegi ngi teew euh, waxtaan wi ñoom itamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax suñu taar madame Diatta Skatoubam pour la coiffure Fatou Diop pour le maquillage Tijane Dabo également di ko remercier bu baax a baax ci tenue yi ñu baaxee. <laughs> <laughs> musóor gaa ngi noonu akasasam incha allah dañ koy teewal euh, suba Bougane Gueye Dany également dina dina fi ñëw donc euh, loolu yëpp ci programme mu grand plateau lay lay doon euh, Serigne Saliou Wane Café Touba Helcom moom itamit moo ñu servir kafe Touba ñu ngi koy jaajëfal au 77 426 15 33 ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax xanaa ma jox kàddu gi Mouhamed moom moom nee na dafa bëgg yegg un million nest <laughs> foog mu yegg 1 million. man de Mohamed mi yow yow rek la ngaay moom mi ngi teewlu bu baax waaye tamit Amadou Diagne euh, bu Pikine moom mi dafay tax taxaw ndawu Pikine yi bu baax a baax taalibe euh, Serigne Bamba la Amadou Diagne bu Union des forces de Pikine nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ Abdoulaye Diop Bichri waaw kontaan na ci yow bu baax a baax a baax a baax ayca euh, damay dugaat Facebook live ñu egg un million euh, kii may bëgg may nag euh, lii moom commentaire dafa xaw a daw yaram nee na Kaolack la dëkk waaye li ko li ko neex ci waxtaan bi mooy cohésion bi nga xamee ni doon nañu ko waxtaanee léegi bi nga xamee ni Cheikh Ahmadou Bamba def na ko diggante Kaolack ak Tiwaawan donc nee na loolu la Sénégal yëpp di xaar Euh, et puis tamit ñoom euh, téléspectateurs yi loolu la ñu bëgg muy que ñuy waxtaanee à chaque fois suñu mag yi nga xamee ni ñoo ñuy gindi ci lu bëri à chaque fois donc moom mi ngi tudd Amadou euh, Niass Amadou Niass Niass Koumba Abdallah moom numéro de téléphone am nee na jëlal ma 77 035 44 45 ayca Amadou ñas waaw donc moom may nañu ko 200 000 bu ko defee ñu egg 1 million ci guddi tay gi un million may nañ ko ci guddi euh, Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul jar na ko euh, bu subaa euh, ci numelaan gi tamit dinañu toll dinañu mayaat lu tolloog loolu samedi incha allah dinañu mayaat lu ëpp loolu sax pourquoi pas maa ngi jaajëfal lu baax itamit waa 6 point 9 prestige fële ca point E donc ñoom ñoo génn ci fii ñoo ñuy gunge également tous les soirs fii ci GP seen numéro de téléphone 77 244 19 44 6 point 9 prestige ne ne am na un million santal ma soxna maam Fatou. Euh, nekk fële ca Amérique. soxna maam Fatou moom ak euh, boroom këram sëñ euh, Abdoulaye Bey. waaw mhm. ah, day jàmbaar di sama frère. Mhm. bëgg ma lool. Mhm. ngi doon topp jataay bi. waaw ah, moom ñu ngi koy ziar soxna maam Fatou ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax. ziar bu baax a baax di ko delloo wàccuwaayam. Mm. alors kon dañuy dem rek ci sëñ Moustapha sëñ Moustapha yow tamit ñu bàyyi la nga tàggatoo xool rek nu la neex nooy tàggatoowee. borom jaay ba seexu na mu si seex pend bu yëpp bàyyi ko bu yàgg yàlla yàlla def leer jàmbaar ci Maam Mor Jaara doon kenn ci kenn xam nga day am loo xam ne boo ko wax rek day am lu demee ñu ngi ziar ñëpp ñëpp wax dëgg yàlla suñu ku ñu xam ci àdduna dañuy tudd sa tur ngir jëm yàlla ngi jégalu ñëpp ñëpp jërë ngeen jëf barkeelu xasida rek ñaane ko ñaan yàlla dafa ñu jàmm def jàmm ci réew mi ak àdduna bi yépp baynama xarajal muxtaar waajal bi xardatin min turaab bin wal daa la ilaha illallah indallaahi indallahi jalaala indallahi jalaala indallahi jalaala dëggit indallahi jalaala la ilaha illallah indallahi jalaala indallahi jalaala ana biya kala tax laam wakaaru saaltuhu jalla bil muxtaari summa bi alla azal alladi li xtaara xtaaru yaa dëgg dëgg it ah doo ko sëkk tël Sëriñ Saaliw Mbàkke Saaliw Mbàkke xel koom de jooy na yurul de jooy na xabaan jooy na jëmi Sëriñ Saaliw jooy na borom ngeejaan donga jooy na borom xel jirim jooy noonu sunu sang ba borom xayka jëmi jooy na madina jooy na tuuba de jooy na jëmi sëriñ alxuraan de jooy na hadiis de jooy borom ndoka xasaayit de jooy na borom jamono jëmi sëriñ Saaliw irham jëmi yow yaramal alwara mi ndefile la daan ñaanaat mu ne balay sa cey sey xona sëriñ la laa biram ga naa yërmandeem ja yaatu na bëggum ndawam yi yaatu na cey Seyxuna Sëriñ moo defar Samuel Sarr kuy hmm. kuy ndaw jugal ñu sant ko dëgg te jooy ko ndax moonu defar bu dul nag la yàlla wax ci alxuraan kon deenu jooy yi ba fekk ko jërë ngeen jëf di sant sëñ góor bi nga xam ne moom ci délégation bi la bokk di ñu jàppale a oto bi di sant sëñ alaaj taal mu sëñ baara di sant soxna Anta Diagne ci Italie moom it waaw teeloo continuer ba suba ndeysaan sëñ baara bay moom Cheikh Moustapha ah, imam ah, ak Cheikh Modou Fall bay ak waa mbawoor gépp ñu ngi leen sant sëñ Aliou Thioune ak ah, sëñ Assane Mbaye moom Cheikh Sadio ñu ngi sant ñëpp bàyyi wunu kenn wax dëgg yàlla ajaati kam jaay moom it di sunu yaay wax dëgg yàlla di lépp am yéene yóbbu nu màkk waaye ni jamono yi demee rek moo tax ne ba sama waajur dem màkk moom laa ko boole mu yóbbu ko ci yóbbu ko rafet amul benn coono ñu koy ñaan mu yàgg fi loolu te wér ci barke Borom Tuubaa jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah barke xasida barke teewlu seen émission Grand fii ci Sen TV parce que l'essentiel de ce Ramadan c'est d'être solidaire kooru jàmm ak